jëf kumpa gi rey ñu bari ci man mbër la Macky Sall di tànnal waa Benno Bokk Yaakaar journal L'Observateur xëy na di ko luñutu ak di ko luxumbut ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xamale ki Macky Sall bëgg teg candidat lay doon bu jeunesse bi wekki yaakaar candidat lay doon bu am ak image bu rafet ci réseaux sociaux yi boroom jikko ju rafet lay doon ab liggéeykat lay doon te ku dégg ndigal lay doon la yéenekaay di ñuy xibaar ne ajjuma ji di ñëw mooy kan ki ko war a tànn di Macky Sall bi mi ngi ñuy wax ne alliés yi ci Benno Bokk Yaakaar jox nañu ko seen kàddu ci ndajem conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar bi woon démb fa la ñu ne jox nañu carte blanche président Macky ku mu tànn kooku la ku mu joxoñ kooku la ci ginnaawam ca la topp réew mi quotidien nañu ñoom waa Benno Bokk Yaakaar lu ñuy def nañ ca gaaw ndax jamono ji amuñu temps bu bari ci seen kanam suur soane ko Benno Bokk Yaakaar bi woon démb njiitu réew mi di njiital coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi waaj am ndaje diggam ak député yi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien gis ne mbir yi du yomb yi ndax jamono ji wuute wuñu ak ñuy rocc seen agro ndax ci ki ñu wéeru woon wékk ci moom wékkoon ci moom yaakaar di Macky Sall rocceeku na ci jamono joojee journal Sud Quotidien mi ngi wax ci xëtamu njëkk ne waa APR di parti Macky Sall bi ñoo ngi ne tekk waaye li wér te wóor moo di seen tekk joojee duñ te tàmbali naa Farba ñu wéy ci xët mu njëkku direct news gis ko fa moom Farba Ngom moom ak Abdou Latif Coulibaly seenu doxalin moo jaaxal journal bi ba tax mu xëy di ko waxtaane ndax bi président Macky Sall waxee ne du doon candidat 2024 boobaak léegi amul kenn ci ñoom ñaar ku ñu dégg mu yëy yàbbi ci te du jukke juñ leen xamee ñu xamee ci xët mu njëkku Le Quotidien waa Pastef nee nañu samedi ji di ñëw ci la ñuy investir Ousmane ne candidat ci élection présidentielle rupture par contumace donte Alaaji Malick Ndiaye bu parti Pastef mi ngi wax ci yéenekaay bi ne bu bés ba Ousmane Sonko dana teew ci meeting d'investiture bi le mandat nañu Ousmane Sonko ak ëllëgam ci wote leeragul waaye li mu bëgg moom Sonko moo di forcer ab destin ñi ëllëg lëndëm dëgg ñoo ngi ci journaliser ko ñetti téeméeri doomi aadama yu jóge woon Sénégal mbëkkoon gaaliloo ciy doon dem Espagne yéenekaay bi nee nañu ñu réer ci géej gi journal bi nañu ay doom réew mi lañu yu tolloon ci ñetti téeméer yu doon daw coonaak misère am ci réew mi gi ñu dellu si ci jéeri ji xooli soleil journal benn xale bu jigéen bu ñu naan Yacine moom la journal bi xëyee Yacine Fall ab élève la bu def jaloore ju rëy ci examen baccalauréat ren bi ci lycée Ndande ga ca Kébémer fa lay jànge journal bi dañuy wax ne moom Yacine fal bi muy def BFM 2020 moo ne woon meilleur élève ci Sénégal ren jiit bi muy def bac wanewaat na ko am na bagam ak moyenne bu toll ci 17 virgule 96 ak mention très bien l'observateur di ñu xamal ne moom Yacine Fall xale bu jigéen la boo xam ne yoonam nekkul ci ay réseaux sociaux téléphone portable sax amu ko nee na su màggee médecin la bëgg a doon bay leeral ci l'observateur lan moo tax mu bëgg doon beneen beneenub élève ci beneenub yéenekaay yër leen xët mu njëkku libération élève bi ab xale bu góor la bu ñu gaañoon ci bët atum 2018 ci ay manifestation yu amoon ci lycée malik Sy Amady Touré la tudd yéenekaay bi nee nañu tribunal condamné na état bu Sénégal ngir mu fay xale bi ñu yàq bëtam xaalis bu toll ci téeméeri million